mbokk yi quatrième combat de Sey Jambar école de lutte Lansar Sey Jambar écurie Rock Énergie mooy jàkkaarloog dana bi écurie Thiaroye Sey Sey Jambar Sey Jambar dana bi Sey Jambar dana bi janoo bi janoo bi dañoo jëm ci dañoo jëm ci tur bi. janoo bi janoo bi janoo bi la. janoo bi. day jàmbaar janoo bi. day jàmbaar janoo bi. day jàmbaar. day jàmbaar janoo bi. day jàmbaar. moom moo yor bopp bu am respect bi. day jàmbaar moom moo bi noonu dana bi am ngemb lin takk ngemb kii lu ruus bi sangoor yu ruus yi mbokk yi day jàmbaar janoo bi day jàmbaar aka janoo bi ay jàmbaar danoo fi ay saan ñaari mbër yi ñu ngi jàkkaar jàppante noonu ndeysaan ay jàmbaar janoo bi ay jàmbaar janoo bi ay jàmbaar janoo bi ñaari mbër yi ñu ngi jàppante noonu mbokk yi attention na ko wéyale na ko dem nañ ñoom ñaar ay jàmbaar janoo bi ay jàmbaar mbër yi ñi ngi jàppante jàppante ba léegi dara xewul mbokk yi journée Ibou Laye production journée Ibou Laye production mbokk yi janoo bi face à des jàmbar quatrième combat de la soirée quatrième combat de la soirée mbokk yi এই জাম্বার এই জাম্বার জানবি om ñaar mu ngi jàppante ba léegi dara xewul ndeysaan ñaari mbër yaa ngi noonu seen jàmbaar moom ngeen jàkkaar lool waaye janoo bi janoo bi moo leen wan ginnaaw janoo bi la léegi benn coup ñaari mbër yaa ngi noonu bëri nañ ñaari cinq minutes nekk si prolongation jamono ji ñu nekk am nga deux avertissement jëloon ba combat waaye xooli ne Mor Kanga mi ngi tuus tuus yu dul tamit saako noonu la rawee ndax combat beeg tuus bi yëpp ñoo déggoon ndeysaan waaye comme ni leen ko waxee rek suñu xalaat TV da leen koy am na ku leen nekk ci tuus waaye am na ku leen nekk fii ci combat bi ñu noonu ñaari mbër ci biir géew nekk ci prolongation diggante jono bi bu caaray ak say jàmbar bu roog énergie mi ngi ñaari mbir yaa waa temps bi jeex na combat bi machine yi la nar a jeexee machine yi ndax ñaari mbir yëpp du avertissement ndeysaan kon mi ñaari mbir yi ku nekk am nga trois combats trois victoires nekk sa quatrième combat waaye ba léegi mi ngi noonu kenn amati defet kon bi mooy nekk seen quatrième combat trois victoires benn machine yi bu caaray ak say jàmbaar bu rek si ndeysaan mi ngi noonu stade arène nationale journée Ibou Laye production moo leen tey fii si stade arène Ndiour maa ngi lay nuyu. oui maa ngi lay nuyu di la fay aussi. maa ngi lay jox sa wàcc waay bu baax. waaw fi la rawee bi laa fi. si yàlla xale bi ngeen bëre bëre bu rëy. xeex maa ngi bëre yàlla dogal la woon comme ni ñu koy waxoon rek ñoo la def fulla ak fayda ma def fulla ak fayda xam nga di ko aussi di félicité donc champion ñaari xale ñu doon bëre ñoo la def fulla ak fayda ma ñoo def fulla ak fayda man nekkul woon préparé dama préparé benn adversaire jël ba si digg bi feebar ma mujjee ko jël loolu aussi bokk na si li waral combat bi demee nii parce que médecin ma ko kiw ma ko si fan yii sama adversaire feebar ñu jox ma ko quoi ah, ah, moom boobu adversaire boobu feebar dugal médical dugal médical ñu waaw waaw comme nii a demee. waaw moo tax ñu ñëw moo tax ñu ñëw zéro ko quoi. yaa ngi ci trois. maa ngi maa ngi si quatre combats trois victoire benn match nul tey. mosoo daan. waaw mosuma daan. léegi samay morom bëri nañ fi parce que lamb ji boo xoolee samay morom rek a siy bëri journée bi bëri nañ suñuy morom yoo xam ne mënuñ bëri si lamb sax ñu ne xale lañ dafa wuñ dara quoi buñ ñu seetee rek suñu morom dañuy bëri ak moom incha allah ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi ma jàppale si combat bi yëpp